ab wopp bu ko tëral moom taskatu xabaar bi di nekk patron de groupe de presse Dakar Matin moom Pape Alé Niang gëj nañ koo gis ci li nga xamante ne rek moom mooy ci wàllub information wara sax li nga xamante ne moom mooy wàllub xabaar yi fii ci biir réew mi gannaaw ab feebar bu ko tëral nag mat ci juróom euh, ci ñett semaine yoo xamante ne rek moom taskatu xabaar bi nekk euh, patron groupe de presse Dakar Matin moom mi nga xam ne ab feebar moo ko daal euh, tëral Pape Alé Niang est gravement malade lu tollook ñett semaine gannaaw ba nga xamante ne moom taskatu xabaar bi mu ko daal di tëdd moom mi la di ab journaliste d'investigation ab feebar bu euh, moo ko daal di tëral jamono ji la nag ca la nga xamante ne rek moom la ñu bëree bëree bëri di ko ci doon xaaree ci li nga xamante ne rek moom mooy euh, directeur général de la RTS ngir mu daal di wutu kile di Racine Talla moom nag jamono ji la nag tànn leen lu nekk directeur général euh, de la RTS gannaaw ba nga xamante ne nag jamono jile ñu ngi ko ko doon laam-laamee di ko tudd moom dafa euh, nekk li nga xamante ne rek jamono jile dafa daal di feebar feebar nag moo ko daal di euh, tëral moom mi leen di taskatu xabaar nekk euh, patron groupe de presse Dakar Matin moom nga xam ne ci yenn ci ay investigation wala yenn ci ay combat yoo xam ne rek mëne na ko ak ñile leen di parti bi di Pastef gannaaw ba mu leen défendre ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne rek wala yenn ci ay injustice ñu ngi leen ko doon tek moom mi leen nag jamono jile dafa daal di feebar moom Pape Alé Niang ci lu tolloo ci ñett semaine rek euh, mu ngi gravement malaat moom nag feebar bi nag moo ko daal di tëral ci fàttali ko nag feebar bi ni mel daan loon na ko ca bañ ko tegee woon mandat de dépôt bu mu mujjoon koo mu daal di tane waaye bi yoon nag fekk ko ci kaso bi moo ko fekk këram waaye nag jamono ci la dafa feebar bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar yoo xamante ne rek ay jegeñaaleem nee nañ nag Pape Alé Niang dafa daal di gravement malade gannaaw bañ koy tudd nag ci li nga xamante ne rek moom mooy mu ruutu kooku di Racine taala moom jamono ji ne leneen la tal